ñàkk jom yaa ñàkk jom bàyyi naa la ba ma comme ba ma ngir yàlla ak yonent <laughs> sama yoon new ci ma ne li ngay wax sama yoon new ci aw ma leen lu may waxante yow booy xool sa liisu xarita xool leen bu dee xaadim ngay waxante la waxala xaadim man waxuma kenn ñu yow munoo ma ba munoo wax sa wax da nga ba ma ba ma ba ma ma fii la ñu woo ne ma day jël taxi ne ma dama leen jiboole xombe xaw ma xaw ma kan ma ne ko jiboo ma ak moom. waaye léegi ñu ko def. dalla yow ki tijji fii du kilim lee du du kilim ah ak beneen ah. yow ba pare yow kan moo lox fii eh yow eh ma ne yow ba pare soo waxee lu dul dëgg dama lay tontu ba pare yow kan moo lox fii jël lay jaay waaw kon nga génn ba ma pare nga soog a wax lan moo tax doo ko lan la lan ah, mooy mara bi xanaa moom ah kii ah kii la mara la. waaw kii maanaam Pape Diouf la ah, <laughs> ah moom teewal Pape Diouf uh-huh. ah d'accord non yow yaa ne ma man la bi Mara lan la nga ne ma Mara Pape Diouf la yow da may fenloo Mara du mooy <laughs> ma nii la <laughs> la faale du faale def xëj to ndong la la lii mooy du ma wax fii ni mu yàññee nii. ah ma ne comme dama xamul yow yaa ngi ñëw di waxtaan ak ñoom faalaw ñu. non ay magum jëm bu ñuy wax da ngay déglu man magum jëm laa xale du ma wax xale di wax. waaw. waaw. waaw. ñan lañ ko jagleel. waaw. waaye 100% bi ah, pour jigéen ñi la waaw bu rusi neexee jigéen waaw ah. pénétré. <laughs> roof. roof pénétré lañ koy wax di roof voilà roof. Ah. non mais roof en français roof. <laughs> ba pare Sénégalais ñun maanaam xam nga suñu problème lan la maanaam. lañu ñu war a wax duñ ko wax boo waxee benn wax ñu naan dafa ñaaw xoolal ki naan dafa ñaaw dafa ñaaw ruuf <laughs> eh, waaw fii mooy king poisson fii mooy king ah, fii mooy king kombe boo bëggee doraat boo bëggee jën bu baax bu leen wax damay liir di ko wax lii ban façon jën la nii lii ban façon jën la boo bëggee sëdd boo bëggee dooraat boo bëggee sompaat boo bëggee korompu lan korompu ah boo bëggee coof waaw ah rago ah rago boo ko ah crevette comme lépp lépp maanaam comme liñ daan wëri di ko dijee ci mbedd bi am na fii Thiès jarul ngay taxawaalu fenn da ngay doxantu ndànk ne dagaj dugg ñu jaay la jën bi la neex nga dem sa pepesu wala nga def lu la neex ko mbee te nag li ci waaw naam xam baay waaw loolu day dëgg <laughs> da wax rek mère <laughs> ñu ñëw waaw <laughs> ceesay dëgg <laughs> yaay bandi yow yaay bandi <laughs> kome xam nga sànq dama laa dégg avant may dugg fii nga ne ma sa tata da laa yónni da ngaa war a togg ceeb bu saf sàpp léegi nag ceeb bu saf sap soo ko bëggee jën jën yi baax jën yi bees tàq ñëwal fii nga xamante ne mooy king poisson ah, d'accord naa ñëw biir king na tàkk waaw mais asalaamaaleykum eh oh dans la salle quoi tamit un plus un deux yu bëri nañ deux plus deux karatéka la quatre plus quatre xaaral ma huit ci firi bi huit plus huit alko seize mu toog king baa ngi soog a ñëw indaale cin tey mu ñulug leen defkat yëpp ay légumes lañu waaye king poisson mooy seen king kong mook ñoom ba biir ong kong ku ci gàtt moo lay ting ngom kon kii kenn du ko ti ngom di yee si ngom koo koy king poisson poisson nu ko waxee di waay poisson king poisson kon nag dama bëgg ngeen xam ne ñii yàllaa leen fal ñu ànd ak dal ba toog ci lal ku leen jéem a kal ñoo lay gal doo too ko tal ñii ñoo mën a door bal te ñu ko jal tàng ni xal xam nga king poisson jeexal na ay wax mooy kulli kuy indi jën mbaa ngay jaay jën ñii ñoo la mën ñii duñ la jox jën bu génnee ci teen du la jox jën bu ñu génnee ci mbalka duñ la jox jënu taw jënu nawet quoi ñii jën bu baax la ñuy jaay kon damaa bëgg yéen soxna yi boo leen àggee ca kër ga ñi nga xam ne teew nañu ak ñi xam teewuñu yéen yéen la mën a informer ci wàllu king poisson king poisson nag ku ne xam ne jën yoo xam nañu ci ndox la ñuy génne am na ñoo xam da ngay dem ñu jaaya jën boo xam ne maanaam di ko jékki wàccee ci kaw nga dem togg ñii jaay ñu jën bu nëpp jaay jën boo xam daam ay ay affaire ay ay mécancin ñii ay jën yu baax la ñuy jaay ma bëgg nag ngeen bàyyi ko xel te wax ko seen moroom yi ku ci nekk boo demee xam ni King Poisson ubbi na te cees la nekk te ay Thiessoise ngeen yéen jigéen ñi kër ga monsieur yi ak nijaay da nga leen war a jox ceeb bu ànd ak jën bu baax bu fekkee ci firir la ma ne bu fekkee ci firir la boo leen ko jox seen i jëkkër dañoo war a lekk loo xam ne après day baax seen biir yi bu fekkee ceebu jën la jëm dafa war a ñor te fii jën boo fi jëlee toog ko dina ñor jën yi duñu xaay jën yi ñor lañ lay jox kon dama bëgg ngeen tàcc waa king poisson bu baax a baax a baax jaral mu yàgg di jataala comme ku ci nekk da ngay mos rek wax sa sa sa sa kii sa yéene ndax ki nga xam ne moo ko ubbi yóbbu ko fenn cees la ko indi kon nag yéen waa Thiès bëgg naa ngeen yaatal mbir yi ba ku ci nekk gis sa bopp jërëjëf wa salaam merci beaucoup kontaan naa mooy nuyu nekk sama mbokk artistes yi fi nekk yëpp nag sama mbokk artistes yi fi nekk yëpp bàyyi sama xarit baa ngi ni toog sëñ gañ ma nga ne la ci ginnaaw booy tiktokeur yaa ngi nii booy yi nga xam ne ñoo raakaju mais kii du dukuure an kay kaata rasa kii sa bax ratat ki kii sa rat kii sa bax ki dambax kin kin tata kin ay waay taan kin taan kin taan kin dakin mbatta takin nukun naj tagu tagu tagu tagada mba tatakin nuragun tatat nimba sakin ana ah, wura sakin jarar ki poisson waaw jërëjëf merci beaucoup